naataango Cheikhoul Islam baax parce que ancien yi la bokk ñun suñu règle yi loolu la bon ba ñu waxanteeg ba ñu waxanteen moom ñu non moom mënul ñëw parce que dañ ko bloqué dañu euh, barricade sa maison et le quartier donc mënul génn ko donc ñu ne ko bu dee loolu ñun daañ ñëw seetsi la parce que dañu la soxla gis parce que li ñuy dégg yëpp ba événement yi amee ba léegi dañ koy dégg si presse bi dañ koy déggee en ligne wala kii si internet en général quoi donc ñu ne ko léegi dañuy ñëw seet la pour xam exactement qu'est-ce qui se passe ak nan la deme pour déglu la de vive voix bon ba ñu ñëwee on s'est réunis il des avocats ñoom ñëpp a nii bare woon nañu ci collectif bi ñëpp ñëwuñu mais ñu bare ñëw nañu donc ñu ñëw premier barrage on a vu un commissaire je crois commissaire Sow commissaire Sow de jëppal de nañ fa fekk ñu wax ko suñu babet ñu ne ko lii moo ñu indi suñu client nañu bëgg a wax nañ ko mu ñëw mënul ñëw ñun avocats yi déplacé wu donc ba ñu déplacé woo ba ñu waxee loolu commissaire Sow commissaire Sow mënuñu non mënuñu leen dugg parce que euh, ñun ko li tax mën dañ jot ay instruction ñun ko yan instruction mën dañ jot ay instruction si autorité yi ñu ni ko mais ñun dañu bëgg a soxla ban autorité la parce que ñu mën ko bind lettre xam ban autorité la parce que autorité bare na parce que autorité bare na donc ba ñu waxee loolu ñu ni ko autorité yi dafa bare il faut ñu xam ban autorité la pour mën ko bind lettre bon mënuñu non mënuñu mënul nekk ñu ne ko waa d'accord ñun indi nañu suñu huissier daañu constaté que yéen a ñu tere gis suñu client yéen tere aussi suñu client mu génn donc si condition yooyu nañu tourné ñu ni xam nañ leen dañuy bare ay pexe dañuy wax suba non dañ ñëw benn barrage rek dem seen yoon mënoon nañu dem si yeneen ñu ni nañu def au moins lu mu tuuti tuuti ñu def ñett ñetti barage deuxième barage bi bon foofu ba ñu ñëwee premier barrage amuñu problème ñu dem mais deuxième barrage ba ñu ñëwee ñu gis procureur euh, ñu gis du moins policier ñu waxante ak ñoom policier ni ñu noo xaar leen ñu woo suñu chef ñu di benn adjudant adjudant ba mu ñëwee mu ni non da ngeen xaar maa ngi waxante sama chef bon ñu taxaw xaar après mu ni ñu chef bi nee na mënu leen dugg mënu leen gis Ousmane Sonko parce que ay ordre la yan ordre mu ni euh, ordre yi dañ ko jot yi yan autorité mu ni du wax ban autorité la mais ay autorité la ñu wax ko la même chose ni ko ñun soxla woon nañu xam ban autorité ñu mën ko bind parce que ñu lay avocat dañuy dañuy posé ay acte mu ni non Euh, loolu moom mënul nekk ñun ko d' accord comme bu dee loolu ñun ñooy dem ñuy dem bañ taxee foofu gis nañu ñaari policiers ñu échangé ay grenade mais comme y' personne parce que ñun journaliste yéen ñu si bëri yéen fan lañ leen fekk donc ñun indiwuñu leen mais bañ y' personne mais ba ñu ñëwee euh, bay dem man may manoeuvrer sama oto di génn manoeuvrer naa sax ba def marche arrière bay avancé Cheikh Khoureysi comme maa moom ñoo àndoon sama oto la nekkoon mu ni ma naa ko si portière arrière bi. mooy ubbi portière arrière bi Cheikh Khoureyssi fi muy sëggee fa lay grenade bi di tàkkee waa ji boppam la doon wut bopp Cheikh Khoureyssi li mu sëgg di jël di ubbi oto bi moo ko may chance sinon bal euh, si euh, grenade si oto bi si bopp bi la doon dal grenade ba mu ñëwee mu dal sama oto si euh, si ginnaaw explosé man fa woon naan sax sama pare-brise dafa dafa explosé bon mais ma fexe bon ak saxaar si yëpp dugg si oto bi ak poivre beeg yëpp ma fexee ba tëj maîtriser wu tëj portière arrière bi kon ne avancer pour génn foofu boo di saxat bon sama pari yi gisutuma mais fexe naa ba naxanteeg oto bi nank ba génn ñëw gaari koñ bi nekk latéral bañ demee koñ bi nekk après la ñuy ñaan foofu bineegar ñu may ñu bineegar man ak euh, beneen journaliste bi nekkoon à côté nga xam ne aussi kii daf ko jàppoon ñu may ñu bineegar ban ñu mayee bineegar su nañ ko ñu dem léegi si de troisième point bi ba ñu demee aussi la même chose Etienne John mi moo wàcc waxante ñoom moom Cheikh Ourési ñëw ne leen wax leen la même chose ñu ni non non lañ jotee ordinaire du ngeen bi autorité suprême la wax. mais bi yoon troisième bi waxul su autorité supérieure autorité suprême la wax donc moom moo xam lan mooy suprême ñun lu ñu xam mooy autorité supérieure ak après bon léegi daal si loolu ñuy demaat taal suñu oto dem ñu jëlaat grenade sànni. benn grenade deuxième grand mu jëlaat sànni Cheikh Khoureysi mi nekkoon si génn si biti moo ne ko mais yow grenade bi ngay sànni amul njëriñ parce que ñun dañuy dem suñu yoon si la arrêté mais danoon sànni ñuy génnaat ñu kanam si benn bâche bu nekk foofu si ñaari voies yi fa la dal donc loolu li mooy firndeel ni dëkk bi euh, amul yoon moo déggee ñenn ñi di wax di dëkk dëkk loi la dëkk jàmm la man dama demande ban jàmm la ñenn ñi ñoo am jàmm ñeneen ñu amuñ jàmm ñun avocat sax amuñu droit def suñu liggéey man may fay impôt ngeen ngeen di fay impôt ñu ne tali bi amu leen droit jaar lu tax loolu te constitution bi article neuf wax ku nekk am nga droit libre euh, circuler librement amul fenn pour ñu interdire ay koñ la donc tey ku fi amoon mbokk aussi boo demoon même boo dee avocat doo ko gis man am naa beneen client bu dëkk foofu moo ko san ñoo tax kër du ma tudd du ma sujé kër mën naa fa dem tey mais bu ma demoon wóor na bu ma demee présenté leen sama kart xam nañ ma dañuy wax doo dugg même bu ma leen waxee diw laay seet donc loolu moo jaaduwul kon ku fi taxaw di wax ni dëkk bi am na yoon waxu naa feex la quoi waxu féministe la parce que lii rek moo ko wane avocat bu demee ba mënul def liggéeyam ñu koy gazé exprès parce que ñoom dañ leen wan ñun suñu carte avocat dañ leen wan ñëwuñu rek ni avocat dañ de dañuy ñëw ni leen avocat nañu génn suñu carte avocat tegal leen donc ba ñuy sànni gaz yi xam na ni ay avocat nañuy gazé li am nag Ousmane nañuy téye tëjuñu ko kaso mais liñ ko tëj moo ëpp kaso parce que yoon suñu yoon dafa am nu mu tëddee dafa tëddee ni nit ki mënoo koo def sous résidence surveillée lu dul wala résidence fii lu dul dafa am décision administrative wala décision judiciaire yéen dégg ngeen ministre bi keroog li mu wax ñun ñëpp ko déggandoo amul benn décision ñoom ñoo ko jël jël ko indi ko dugal ko këram par force loolu moom xam ngeen ni kooku teguñu ko fenn ministre bi ko def droit la jàng xam na luy droit donc li mu def moom maay tey loolu moom maa maa tey la def kenn du ko jàngal bu doon ministre bi nga mais moom procureur la woon xam na luy droit xam na lu yoon bu yeewoo suba di keroog maa ngi ko jël muy cité article quatre vingt seize code pénal ba muy cité article quatre vingt seize code pénal moo na xool constitution moo moo ëpp doole code pénal mu xool li ko constitution may mu def ko te xam ne daf fiy jógee soo bu fi jógee actes yi mu posé mën nañ ko si topp donc loolu yëpp ay ay ay ay ay firnde la yu wane ni nekkatuñu si démocratie dictature nañu nekk dafa am ay ñi nga xam ne am nañu droit yëpp moom tey bu fi ñëw ni ubbil ko léegi mu jàll man mii di fay impôt ëpp ma lu mu may fay impôt man wóor na ma li may fay impôt fay genn wàll mais bu ma ñëwee fi ñu ne ma doo jàll fu ñu ko teg lu dul si dictature loolu mooy dictature amul benn décision nit ki mënoo ko tere ay àqam ak yelleefam lu dul da nga ko teg si yoon mais boo ko tegul si yoon ba pare taxaw si tele yi di naa feex di wax ne ay force restera à la loi Sénégal dëkku droit la Sénégal dëkku jàmm dëkku jàmm kay ñun ñëpp 17 millions de sénégalais ñoo war bokk jàmm gi mais fekkee jàmm gi dafa am ñu ko yelloo am na ñu koy yelloo ça veut dire que dëkku jàmm amul ku ko wax aussi da xool seen diggante yàlla mais de Sénégal toll na fi nga xam ni loolu yëpp je crois weesu na quoi li si des yëpp mooy lii mooy wane ni ñii seen nguur dafa jeex parce que affolé pour rien jël grenade sànni ko si ay ay sept avocats dix avocats douze avocats lan la douze avocats lan ban nécessité la am sànni grenade ñi nga xam ni defuñu lu dul wax seen xalima nañu yore di bind ak di wax loolu la leen yàlla may sànni wuñu xeer la preuve ba ñëwee ñu ni ñu mënuñu leen dugg contesté wu ñu benn yoon dañu leen d' accord ñoo ngi jël acte wax leen lu leer mooy dañ fi ñëw ak suñu huissier pour ñu constater nëbbu ñu leen dara donc ku def loolu xam nga kooku jàmm lay wut boo ko sànnee grenade suba nga ni woy moom moo tooñ lii mooy Sénégal quoi donc loolu lañ loolu lañ amoon lañ leen doo loo gis seen euh, client que def ay jéego pour